alhamdulillah alhamdulillahi lazi hadaana li haza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadaana la allahuma salli ala sayidina muhammadin nabil ummi wa ala wa sahbihi wa sallim assalaamu wa rahmatullah seen mbokk imaam Abdou Aziz Ndiaye bu jàkk Sacré-Cœur 3 VDN moo del si tey juin di waxtaan ak yéen bu nekk sunu audio numéro 317 mbokk yi ci sunu jotaay bi passé gisoon nañ ñu ngi woon ci benn taxaw seetlu bu ñu doon def benn taxaw seetlu ginnaaw bi Xadija génne àddina liñ njëkkoon na wax moo doon yonent bi sallallahu alayhi wa lim nekk Xadija yépp diiru ñaar fukki at ak juróom mosul am beneen soxna bi Xadija génne àddina ci la sog a ay soxna soxnaam yooyu ñu ne woon mënoon nañ leen a regrouper mënoon nañ mën nañ leen a regrouper ci ci ñetti kuréel maanaam suñ suñ jàngatee li tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël leen ci ndigalu borom bi toujours parce que bu ñu fàttali mbokk yi yonent bi li muy am soxnaam yi le fait que mu dépassé ñeenti soxna nga xam ne moom la ñun jullit am du droit jël loolu moom dong moo am jagle boobu moom dong moo am jagle boobu parce que moom dong moo am mission taxawal lislaam moom dong mooy yónnent ci lislaam lislaam benn yónnent la am muy muhammad sallallahu alayhi wa moom la borom bi jox mission moo tax moom dong moo am jagle di jël ay soxna ngir taxawal diine boobu ngir doxal mission boobu mbokk yi noonu lañu ñu war a déggee noonu lañu ñu war a comprendre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soxna yi mu doon jël toujours ci intérêt lislaam la donc moo tax groupe bu njëkk bi wat gisoon nañ ko déjà mooy ñi nga xam ne daf leen jël ngir sàmm kóllëre sàmm kóllëre ngir rek sàmm kóllëre rek ngir lislaam gën a dëgër l'islam gën a yaatu loolu gis nañ ko ci jotaay bi passé ñaareelu groupe bi moom mooy soxna yi nga xam ne daf leen a jël ngir yërmande ndax daf leen yërëm ngir yërmande bu mu am ci ñoom ndax soxna yooyu ñoom seen ay boroom kër dañ génn àddina ñett lañ ñett lañ kenn ki di Zeynab bintu Xuzeyna Zeynab bintu Xuzeyma moom jëkkër ji dafa génn àddina badar badar la badar la ko badar la la la génne àddina xare badar zeynab bint xuzeyma jëkkër ji génn àddina badar bàyyi kook njaboot mu jaaxle yonent bi jël ko jël ko ngir yërmande jël ko pour mun a taxawu njaboot gi keneen ki di ummu salama ummu salama moom itamit jëkkër ji boroom këram dafa génn àddina ca xare xare Uhud même situation rek ak Zeynab bint Xuzayma jëkkër ji génn àddina ca xare Uhud bokk kon ci soixante-dix yi nga xam ne ñu ngi leen denc Uhud moom it ak njobootam yonent bi jël leen ngir yërmande ñetteelu soxna bi bokk ci groupe bi mooy Umu Habiba Umu Habiba moom ak jëkkëram dañ bokkoon ci ñi demoon gàddaay dem Éthiopie Umu Habiba moom waajuram bu góor mooy Abu Sufyaan mu nekk ci ci kilifa makk yi Abu Sufyaan buñ demee Éthiopie bokk ci yi nga xam ne dañ gàddaay malheureusement jëkkër ji daal di tubbi mu nekk mu nekk naqar bu njëkk ci umma Habiba jëkkër ji dem ba Éthiopie daal di fa tubbi génn ci diine lislaam ñu teg ci tuuti nag mu mu génn àddina faf du façon ba mu génn ci diine lislaam Umu ba jamono yooyu amatul jëkkër xam nga naqar commencé na parce que génn bi mu génn lislaam jëkkër ji rek ca la ba tas sëy ba tas ñu teg ci ñu teg ci tuuti jëkkër ji ki doon jëkkëram génn àddina kon mu nekk moom kenn dong combal ca Éthiopie yonent bi wax Najaasi pour mu daal di ko ko jox soxna mu daal di ko ko takkal kon mbokk yeneen exemple la ngi nii yeneen exemple la ngi nii di wane na yonent bi sallallahu alayhi wasallam soxnaa yi mi soxna mi mu doon jël du mbiru bakkanu boppam du mbiru bakkan du bakkan de xam nga soxna si soo jëlee kaaw Umu Habiba dañ koy gën a comprendre yonent baa nga ca Màkka kilee nga ca Éthiopie ak naqaram mu joxe ndigal ne nañ ko ko jox soxna yëg rek pour yëkkati ko pour yëkkati ko pour dalal xel pour dalal xelam ndaxte ndaxte mbir mi tamit wax dëgg yàlla euh, tiis na ñetteelu groupe bi mooy ñi nga xam ne yonent bi daf leen jël ngir jàngale toujours rek ci ndigalu borom bi allah subhanahu wa ñetteelu groupe bi ki ci njëkk a tudd mooy safiya safiya lu tax ñu koy tudd boole ko ci groupe bi mooy que ne moom moom yawut la yawut juive yawut la ki ci topp maria alxiptiya moom moom chrétienne la moom nasaraan la chrétienne mu nekkoon benn jaam bu buuru misra mayoon yonent bi maria alxiptiya bi moom mooy jur ibrahim doomu yonent bi te ibrahim génn àddina nekk tuut tànk à part ibrahim bi nga xam ne maria alxibtiya moo ko jur yeneen doomu yonent bi yëpp waxoon nañ ko xadija mooy moo leen moo leen jur mennum ibrahim bi mu am ak maria alxibtiya moo ci moo ci mooy exception bi waaye ibrahim dafa mujj génn àddina nekk tuut tànk kon Safia nekk yawut juive Maria al nekk euh, nasaraan chrétien waaye ñoom ñii gëm nañ ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la njàngale mi fii mooy ne ahlul kitaab borom bi allah subhanahu wa dafa dafa ñu waxal ci boppam ne am na ci ñoo xam ne ci waa ahlul kitaab dañoo gëm am na ci ñoo xam ne ci waa ahlul gëmuñ ahlul kitaab mooy ñi nga xam ne téere wàcc na ci ñoom li gën a siiw rek ci wax yi mooy ne dañ naan jullit am na droit takk jigéen ñi nga xam ne téere wàcc na ci ñoom maanaam jullit am na droit takk chrétien am na droit takk takk juif jullit bu góor am na droit takk euh, euh, chrétien am na droit takk juif waaye nañ def attention borom bi ci boppam mu dafa ñu wax ne ci ñoom am na ci ñu gëm ci ñoom am na ci ñoo xam ne gëmuñ am na ci ñoo ñu ëpp ci ñoom ay faasix lañ kon ñi nga xam ne gëm nañ ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam yónnent la ñooñu soo leen takkee soo leen jëlee soxna dinga mën a am yaakaar ne su yàggee nañ tuub ndaxte gëm nañ muhammad sallallahu alayhi wa gëm nañ ko xanaa kay dafa dañuy am ay sikki sakka ak nekkoon ci benn diine boo xam ne yàgg nañ ci di hésité am na yoo xam ne leeragul ci seen bopp ñooñu soo leen jëlee soxna takk leen say mission mooy li lënt ci seen bopp nga leeral ko xam ne nag yow sa mission mooy ñoom ñoo dugg ci diine lislaam kon ñi nga xam ne dañoo gëm ci waa ahlul kitaab dañ leen di jël mais am na ci wax ahlul kitaab ci chrétiens yi ak ci juif ñoo xam ne ñoom dañu gëmul yonent bi sallallahu alayhi wa di tuut gëmuñ ko bugguñu ko sax faf ñooñu duñ leen jël amuñ droit jël leen surtout que dañuy wax ne Useer doomu yàlla la Isaa doomu yàlla la te képp ku wax loolu képp ku ne yàlla am na doom da ngay dugg ci shirk kuy shirk moom jullit ala xaal du la mën a jël du la mën a jël soxna kon mbokk yi njàngale maa ngi nii fàttali bi fàttali bi mu ngi nii ki leen ñetteel groupe bi ki leen ñetteel mooy Zeynab bint Jaash moom kaam dafa dafa yéeme waa jàngale bu mag a ngi ci biir tamit bu ñu borom bi Allah subhaanahu wa di defal moo tax Zeynab bint Jaas mbiram dañ koy jagleel ay audio incha allah dañ koy jagleel ay audio ndax solo bi mu am ndax xóot bi mu xóot ndax yaatu bi mu yaatu kon mbokk yi ñu yemale waxtaan wi fii incha allah suñ fi suñ fi ñu ubbi buntu bi nga xam ne dañ koy jagleel euh, soxna yonent bi bi ñuy wax Zeynab binti binti Jaash kon suñ tënkee laata suñ tënkee ci lu gaaw ne gis ne kon euh, fukki soxna tudd naa leen fukki soxna tudd naa leen ci fukk yi juróom-ñeent ñoo ko ñoo koy tënc ñoo ko ci tënc subhanaka allahuma wa bihamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim